jërë ngeen jëf gise bi Macky Sall gise ak i ñooñam xëy nañu ko gis ci yéenekaay yu bari ñu xëyandool ubbi l'observateur keroog samedi ji weesu président de la république Macky Sall dafa dalal ca palais ba député yu Benno Bokk Yaakaar yi yéenekaay bi nañu teewoon ca ndaje ma njiital assemblée nationale di Moustapha Niasse honorable député Aymérou Gningue président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar Aminata Mbengue Ndiaye njiital au conseil collectivité territoriale doonit coordinatrice bu coalition Benno waxtaan ndaje ma guddoon na yàgg ne 18 heures ba 20 heures waxtaan nañu ko ñaar fukki nit ak juróom-benn ñoo waroon a jël kàddu waaye bi ñu xoolee gis ne bu ñëpp waxee fa la fanaan ci la ñu wàññi yi ba ci fukki orateur ak ñett président Moustapha Niass mu njëkk jël kàddu gi ba mu ca noppee jox ko honorable député Aymérou waaye moom daanaka tawati député yi la doon yeggee président Macky xamal na ko ne li ñu baaxoo ci réew mi moo di ko président Macky Sall dégloo ñu wax ba sottal ci la jëlee kàddu gi xamal leen ne li ngeen ma jàmbat si dinaa ci taxaw rawatina mbirum terrain yi mu di pàkk yi dinañ ci jëmbat jiite ba nga xam ne gën koo yàgg fii ak fukki fan juróom di ngeen jot seeni pàkk nee na leen nit ñu booloo jàppante tey liggéey en équipe féddale na fet ak xaritom diggam ak Moustapha Cissé mi ñu génnee ci bureau assemblée nationale bu yees bi journal Le Quotidien xëy ñu wax ci xëtamu li président Macky Sall wax ci Moustapha Cissé Lo nee na Cissé Lo sama gain la sama frère la te loolee dara du ko dindi laa si ne kay ne ko yamu ca ne wax na leen nit ne man bëggumay remaniement ndax daf may xañ ay xarit Sall wax député majorité yi la tribune ay ndinkane manam mi confiance lako jappé néna len ma xam li tax ramani ma mbay changement ndax ay non rek la may wutal wax na len nit ne réew mo dem ci aduna bi majorité bi waru garam moy gungé gouvernement bi ci liggéeyam premier vice président bu assemblée nationale bu yes bi di Abdou mbaw xeyna na ay dëggam ci vox populi yëral xat mu njëkk journal bi Abdou mbaw néna na président Macky Sall doxul ci ay tiaxan la mu ne woon ak barki demb ci la nek ba tey mu di lu liggéey Sénégal gën ko ñongal waxi 3e mandat ji ñuy wax jëme ci Macky Sall honorable député Abdou mbaw né lolé ay caaxaan la ay waxi kasaawa kasaawa la yoo xam ne ñi koy wax rek la yitteel mbiri usman Sonko honorable député Abdou Mbow ne na nuppalu ndax sénégalais yi am nañu matak waaye ak ñor gu toll ne ñu fekk koo xam ne lu mu la wax dara du ci dëgg bu nuppi ñu koy teg ci boppu réew mi boppu parti socialiste kan moo ko war a jiite gannaaw ba Ousmane Tanor Dieng faatoo journal yu bari ñu xëyandool xëy ñu xamal ne Serigne bay Thiam taxaw na ngir doon secrétaire général bu parti socialiste maanaam jiite parti bi journal Les Échos nañu moo ko waxal boppam moom ministre ak assainissement dañu ko invité woon keroog ca télévision bii di ba muy waxtaan ak Maïmouna Ndour Mansour Faye fa la waxee ne Aminata Mbengue Ndiaye ñoo ko tànnoon teg ko ci bopp parti bi waaye ngir intérim la woon intérim bu nekk dafa am fu mu yem jot nañu def fi renouvellement ci biir parti ne bu ñu ma ko dénkee ci biir APR bi mi ngi intérim la woon intérim bu nekk nag dafay jeex mu ne bu ñu yeggoon tey ji ci tànnal parti socialiste njit mom candidat la cey doon wacc na ba jekko tok di xaarub congrès ci vox populi Serigne Mbaye di fa leral ak di fa deugal ne militant yu parti socialiste ci mom Serigne Mbaye Thiam la am yakar ngir mu jité parti bi ñu bari ci ñom militant yi bëss bu nek ñu ñew set sama di ma ko wax Le Quotidien bind ne Serigne Mbaye Thiam mi ngi ñak ñakal Aminata mbeng ndjay socialiste benen bu ñuy ñak ñakal di Alioune Ndoye ministre de la pêche anki dina kay ne nañu marier yi ci réew mi ñoo ngi koy jëlal défense mbotay gi jaboote mareyeur réew mi pêcheur yi ak femme transformatrice yi nee nañu li bëgg yi nek ci ginnaw di tumal seen doxalinu ministre Alioune ak di gàkkalub deram nañu ko dakkal ni mu gën gaawe li ñuy waxal Alioune ci licence de pêche yëpp nee nañu dara amu ci ci la ñu fay wax ne ay nit yu jiital seen intérêt bopp ñooy wër di yàq delub Alioune ak di ko waxal lu amul ministre de la pêche Alioune li muy def yëpp mooy lu jëmale nappum réew mi kanam waa Grand Place nañu ko am kudd dool ak mareyeur yi ci réew mi li ñu jàpp moo di ay nit ñu bëgg dundee napp li ñu ci ne collectif gémb mareyeur yi ci réew mi pêcheurs yeeg femme transformatrice yi seetal nañu seen ministre Alioune Ndoye ci coowal licence de pêche yi ba mu set wecc mbir yi Bocar Samba ngi bëgg a leer naññi ubbi l'observateur diggante jaaykatu ceeb bii di Bocar Samba ak banque bii di CBAO liggéey ba ca cour suprême santaane woon noppi na la mu wane moo di Bocar Samba Dièye moo nekk ci dëgg banque bii di CBAO moo tooñ l'observateur nañu moom jaaykatu ceeb bi di Bocar Samba Dièye ak kuréel gii di AXIF ñoo ko xamle seen bopp démb fukkeet ak ñaar daanaka bi Bocar Samba Dièye ak CBAO nekkee ci ay ñol ñol ay yéeg gi tey mu jeex li ci journal Libération moo jeexali wax bureau de poste bu Dakar Étoile yéenekaay bi nee nañu ki ko jiite mu di chef de bureau ba moo vidé kese ba mu ne pëng jox ko ab sëriñam sëriñ bi da ko waataloon ne ko dara du la ca fekk doo dem kaso waaye yàlla def na ñoom ñaar ñëpp ña nga ca kaso ba